dañ ñu dàq te façon bi ñu dàqee du façon bi anam bi wér bi yoon nangu pour ñu dàq ci nit ndax nit boo koy dàq ab liggéeykat boo ko jëlee ba koy dàq da nga koy bindal këyit ne ko kat dàq naa la waaye doo ko woo téléphone ne ko dàq naa la donc yoon daf ne nit ki bu fekkee ne da nga koy liggéeyloo gannaaw bu mu defee erreur nga gis ne def na erreur nga jox ko ay avertissement à trois fois de suite nga koy sogo donc adressé

dañu ne bi loolu amee dama leen topp ñu filtrer sama numéro nanguwuñu ma accordé audience ma di leen topp ba yóbbu leen inspection du travail par trois fois de suite wane naa kayit yi yi wane ne yóbbu naa leen fa benn yoon lañ ci répondre bi ci des répondre ñu alors inspection defal ma procès verbal de non conciliation ñu yóbbu ko tribunal donc greffier yi nga xam ne dañu nekk en grève moo retardé dossier bi sinon heure bi fekkoon na statué nañ ci bu yàgg beneen bi mooy. Vous avez des lettre de licenciement def parce que quand man pointage mais vous sama lettre de licenciement sama lettre de licenciement nous ñun pouvons ko Nous mais nous, nit ñu même erreur te bokkuñ sax Nous ñuy liggéeyee man Touba laa Nous ngi Nous ngi on se pas nous. se connaissait pas donc nous même erreur déjà

alors que loolu c'était pas valable pour tous les gars man gare bi ma nekkoon ñun duñ jaay ticket ñun on utilisait des cartes donc kon ñaari ñaari fànn yi mu wax yëpp man ne moom la ma dàqee moom la dàqee samay morom benn teguwu ci yoon ku ku gisul ticket nu muy jaayee ticket beneen bi mu ne suspendre na ma depuis le 8 août man liggéey na ba le 17 septembre ni, ngi nii leer na kayit baa ngi alors donc mu waral moy, dañu am seen i quota parce que nag autoroute bi boo xoolee sa doomu nijaay doomu bàjjen la sama doomay dugg sama doomu ni sama jarbaat la sama diw diw diw moo fay dugg boo fa duggee ñi sant Thiam ñoo fa ëpp li ko waral mooy kii recruté te nekk Ageroute un certain Cheikh Tidiane Thiam mais mooy dugal ay mbokkam c'est la dynastie Thiam moo fa am. Mhm. alors donc loolu sax dama ko xawoon fàtte mais c'est intéressant pour ñu dugal ko li ci des mooy heure supplémentaire nit noo ko mën a liggéeyloo pendant 14 heures de temps la journée fin du mois bi du ko gis te législation sénégalaise dafa wax ni ñu liggéey 8 heures de temps je vous dis que man gaar bu ma nekkoon j'étais chef d'équipe li waronone may dugg ci box dama amone élément bo xamante ni dafa ëmboon mais 14 heures de temps yi muy toog mo taxone mu dem ba avorter. day toog 14 heures de temps dafa mujj avorter. Légui comme dem na te am naa déficit il fallait que may dugg ci box pour jàppale leen autant de choses yo xamné ni tay buñ ko souligner mu nekk lo xamné lu avéré te li wax ni ñepp ak may sétane ñepp may sétane ñepp koy gis.

loolu motax tay tey ñuy xeex di def lepp parce que ay sénégalais lañu kenn ëppale wuñu Sénégal. suñu mbokk euh, yi nga xamné ñom lañu dakk te ñu doon liggéeyee ci autoroute Ila Touba ak euh, autoroute euh, AIBD Mbour pour wax ñi nga xamné ne ñoo leen dakk ak ñi nga xamné ñom ñoom ñoo teg seen euh ay baabun yo xamné dañoo japp né golo day bëy ñoom ñu dundé ah bës niki tay frappe dina and ak katou Euh, AIBD ak euh, liggéeykatu autoroute à péage Ila Touba ngir li nga xam ne mooy seen ñàkk seen àq ñu fay leen ko ba mu mat sëkk ndaxte nag golo di béy baabu du dundee dafa jeex dafa war a dàkk ñu ngi nag euh, wax Oumar Youm ne autoroute à péage sénégalais yëpp ñoo ko bokk c'est pas parce que dafa bëgg ñi koy jàppale ci wàllu politique mu am fu mu leen dugal ngir ñuy fayee ku weer bu nekk.

ñu ngi ràññee ne liggéeykat yi tumranke nañu loolu ci senegal ñetti at a ngi ñu ngi xeex ci wetu liggéeykatu PCC yi ay weer ngi ñu ngi liggéey ak liggéeykatu ABS ay weer ngi euh, ñu ngi euh, fii la daje woon ak liggéeykatu hôtel King Fahd Palace yàggul torop ñu jox ak liggéeykatu Grand Moulin de Dakar tey ñu ngi ak ñii di liggéey ci autoroute à péage Ila Touba ak AIBD Mbour lii moom li muy firndeel mooy naam mbas mi mu ngi fi waaye am na beneen mbas moo xam ne kenn waxu ci muy mbas bi nga xam ne mooy liggéeykat mbas mi nga xam ne mooy ŋàcc liggéeykat mbas mi nga xam ne mooy noot liggéeykat ngir jëriñu benn nit ngir njëriñu ñaar wala ñett wala ñeenti nit loolu nag moo fi war a jeex te ñun nag dinañ ànd ak ñoom dinañ ànd ak ñoom ba keroog ñu jox leen dëkk